que président yëgee démb daf ma ne bàyyi lépp loo jàppoon ak loo fas yéene woon def nga demal ma ànd ak say naataangoo Ziguinchor bu doon sama sago nag du ma yebal man doon sama sago day yebal keneen ndaxte man dama boole sama bopp ci njaboot bi ci famille bi ndaxte. 2002 ba may installé ay cellule alliance parce que je suis allé à la doon 2002 may installé jëf-jël ci que Samba la donc dama ko defoon man ci politique sama jaati Donc, donte bokkuñu woon parti ay témoignage xam war def politique politique tey da ngay gis kii nekk fii suba mu nekk fee gannaaw suba mu nekk feneen ma jàpp ne moom amoon na occasion yu bari nekk feneen nee naa leen man moom laa jàppoo muy samay jaati gi ci politique waaye bu politik jotee Ablaye Balde mii lay jàppale loolu xam nga mooy lan mooy loyauté loolu nag lu jafe la ci politicien lu jafe la ci àddina sax léegi moo tax war na bokk ci li nga xam ne dañ kaa war a seede ci moom ñu xam ne digganteem ak nit ñi ngor moo ci mësa dox alaaji Samba Gaku dërëmu kenn digganteem ak nit ñi ngor moo ci doon dox digganteem ak nit ñi bëgg Casamance moo ci doon dox digganteem nag nit ñi bëgg Ziguinchor moo ci doon dox digganteem nit ñi bëgg Sénégal moo ci doon dox moo tax Sénégal bi yëpp teew fi taxawu diine bi amul tànt bu ma dem toog te fekkuma fa Samba Gakou ba marsaasum keroog bañ fay daje ma ne ko mais Samba grand da nga feebar bu fi ñëwati bàyyil toppalikul sa jaan wàcc na amatoo looy prouver mais Samba Gakou amul fenn fooy dem jiitu ko fa moo tax may rafetlu témoignage bi nga xam ne Boun def na ko au nom de tous les zimaam et ma sama papa Samba Ndiaye jaar ci Samba Gakou dafa symboliser li nga xam ne ñun loolu mooy Casamance parce que ñun Casamance dafa am lu ñu yàlla barkel fii diine yëpp benn la ñépp mbokk lañu ñépp a jaxasoo kenn du ràññee ban xeet nga bokk ban diine nga bokk ak sa couleur peau fi ñepp mbokk lañu te loolu la Samba gako symboliser yàlla na ko yàlla fay taxawaayam di rafetlu li nga xam le maire wax nako parce que damay ragal toujours ñu mel non ñu leen di faté parce que nak adina mo doy war nit dafa gaaw faté fàtte te baax ñu mel ni ñu leen ba àddina di tukki man duma wax dama la wax pour mu neex la mais Samba gaku dafa symboliser ce nga nous ñun félicitations et merci monsieur le maire pour cette proposition en espérant et je le sais d'ailleurs je suis persuadé que le conseil municipal vous suivra dans cette proposition parce que Sambou, Samba Gakou est un homme multidimensionnel. Il y en a, vous êtes ses compagnons. Il était ami de tout le monde, mais il avait ses compagnons. je suis venu ci avion bi suis ma le président Bass Fati dajeek directeur euh, Dafe ñëw aéroport fekk fa sama mag Alassane Sarr sama xel dafa dal suis content. ñëw fekk fi mbañik loolu day wane ni nit ki am na loo xam ne saxal na ko ci xolu mbooloo mi e, tey ñun ñëpp am naxar ñun ñëpp am tiis Casamance moo dëj la Sénégal dëj la président mu ngi leen koy jaale